aoudu billahi min alsheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim wasala allahu wasallam ala ashraf almursalin sayidina muhammadin alamin wa ala alihi wa saxbihi ajmain wa man tabiahum bi ixsaani ila yawm ddin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, ñi ngi am mbégte ci yëkkati kàddu yi nga xam ne noo ngi ko yëkkati ci turu njabootuk Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gépp te kat nekk ca bopp ba di sëriñ Moustapha ibnu Cheikh Sidil Muxtaar xalifatu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara di ko yëkkati nag ci kàddu yi sunu waajur yu toog di sëriñ Modou Bara moom sëriñ Abdul Xadim kàddu yi ay kàddoom la moom moo ko waroon a yëkkati waaye nag dafa ñoo jox ndigal nenu nu wuutu ko ci euh, kaddu yi na kaddu cant rek la ak ngërëm goo xam ne njabootu Cheikh Mouhamadul Amin Baara gépp ñu ngi ko yëkkati jëme ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te dolli ko defal wér di ko ndokkeel di ndokkeel murit yëpp di ndokkeel itam jullit yëpp ci liggéey bu rëy bii nga xam ne yàlla def na mu la ci ëpp sotti ba ñu war koo daloo muy lu jëm ci mujamaa Cheikh Khadim bii nga xam ne ñu ngi koy tuddee eh, université te muy loo xam ne xëy na dañuy jëfandikoo baatub université rek ngir tegtale ne barabu xam-xam la waaye li mu doon dëgg-dëgg ëpp na université Euh, loolu di loo xam ne ndamul lislaam la ndamul yoonu murit la di loo xam ne it yàlla def na mu sottee ci loxoy Cheikh Mouhamadul Muntaqa nekk itam bëgg-bëgg boo xam ne ñëpp nangu nañu ne bëgg-bëgg bokk na ci bëgg-bëgg yi nga xam ne euh, Serigne Touba bàyyi woon na ko fi bu ñu delloo ci mbindum Sëriñ Mbàkke Buso danañu gis ne wax na ne ñett yi nga xam ne euh, Sëriñ Tuubaa bàyyi woon na ko fi te muy ay mébét te jutu ko woon sottal ci saayir euh, jàngukaay bu mag bii ci la bokk loolu it sëriñ bi eh, jotu ko sottal ci saayir waaye moom xam na ne bokk na ci yi nga xam ne ñaanoon na ko yàlla suñu borom tabaaraka wa taala ba suñu borom nangul ko ko mu bind ko ci waxam ju siiw jooju nga xam ne euh, ci lay waxe ne bil mustafa lii banal quduusu madrasatan biha yazulul ada wal jahlu wal kabadu euh, muy bayit wu gàtt woo xam ne lamboo na ci ay maanaa yoo xam ne tegtale na euh, ku ko settantal jàngu bi li nga xam ne noonu la sëriñ bi bëggoon mu mel ko ndax wax na ne e, dafa jëfandikoo baatu madrasa te am na yeneen baat yuy tegtale jàngu yoo xam ne mënoon na ko jëfandikoo e, mënoon naa jëfandikoo lu mel ne jaamia muy université waaye madrasa la wax mu mel ne kon dafa bëggoon mu nekk barab boo xam ne day boole jàng ak yar ndax jaamia moom am na bari na ci àdduna bi waaye nag ku ne xam na ne yitteem yar bokku ca jàngale rek mooy doon wàllu xam-xam bi rek mooy doon la nga xam ne mooy ñor mooy yitteel professeur yi nga xam ne ñoo fay teew wala bu ca yar amee cirit lu néew lay doon waaye la leen di lay ëpp solo daal mooy njàngale ma sëriñ bi nag dafa bëgg barab boo xam ne nit ki dafay defaroo lii tegtale itam ne baatu madrasa boobu barab boo xam ne day boole yar ak jàngale la ci jublu mooy la ca topp mooy lim wax ne biha yazulu l ada wal jahlu wal kabadu mu mel ne baatu aza ak kabadu boobu ñaare li koy sabab ci doomu aadama ak moo koy sabab muy jahlu loolu nag te nit ki waxtu woo xamante ni bii kon bu nit ki réeree rek dafay mel ne li ñuy wax saxaada moom dootu ko mën a amati dootu ko mën a amati adduna dootu ko mën a amati àllaaxira kon nag ñàkk saxaada googu saxaada la sëriñ bi yéene képp ñëpp doomu aadama yëpp ñu am saxaada mu mel ne saxaada kon balaa mën a am rek faaw li ñuy wax jëxlu muy ak moom day dañ ci doomu aadama kon nag loolu moo tax sëriñ bi Euh, mel ne dafa sàkku ci barab boobu muy barab boo xam ne nit ki dafay defaroo am texeg àdduna am texeeg àllaaxira kon nag ni ko sëriñ bi bindee bu ñu settantalee nii nga xam ne noonu la ko Cheikh Mouhamadul Muntaxa taxawale dañuy gis ne ah méngoo na lool nag ak na nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëgg kon day mel ne sottalal na sëriñ Tuubaa bëgg-bëggam boo xam ne bëgg-bëgg bu kawe la woon wala boog def na ci loo xam ne dootu fi jóg ba faaw. ci bëgg bëgg sëriñ boobu muy jàngukaay bu mag boobu bi mu ci noppee itam muy jëf joo xam ne rëy na lool ndax bu ñu doon seetantal tey jii di wër ku jëf-jëf ju tol noonu ci lislaam jëf ku ci xam-xam ah euh, ci Afrique gii de dana jafe nga gis ko fi koo xam ne lislaam xam-xam liggéeyal sa jëwrin jaral na la lii nga xam ne moom la liggéeyal Sëriñ Tuubaa jaral Cheikh Mouhamadul Muntaqa dana jafe nga gis kuñ ko ci mën a dendaleel ci jamono kon nag moom jëf na jëf joo xam ne ci xarnu bii muy dund ah kuy war ku jëf-jëf ju mel ne jëf ji mu jëf wala jëf ji ñu toll di dana jafe lool waaye nag li ci am solo lépp mooy jëf ji li muy rëy rëy da koo delloo nag ci sëriñ Tuubaa muy jëf joo xam ne lépp da koo jébbalaat sëriñ bi loole itam da koo wane jëmmal ko ca njaalbeen ga ndax bi mu koy tàmbali dafa woo murit yëpp ne leen kaay nu ànd liggéey bii ndax liggéey bi bëgg-bëggub sëriñ bi la te euh, ku ne bàyyi na ci waaram ci ñi nga xam ne ñoo fi wutu sëriñ bi moom nag dafa fas yéene àggaleel ci ñoom mbooleem xulafaa yu ko jiitu woon seen yéene loolu nag dafa fas yéene ànd ko ak murit yëpp ndax li mu yéene boppam loolu la yéene murit yëpp kon nag defal na ko Sëriñ Tuubaa waaye nag ànd na ko ak murit yëpp mel na ne kon ndam li tey jii ndamul lislaam la ndamul Cheikh Mouhamadou ta la waaye ndamul murit yëpp la ndamul jullit yëpp la it. Euh, bi mu àndeek murit yi itam liggéey liggéey bi bu liggéey bi sottee dafa jëlaat lépp delluwaat ko euh, njabootuk Serigne Touba gi ak taalibi Serigne Touba yi ndax li ci njëkk a sotti bi ñu koy ubbi dafa kër gu nekk dafa tànn mbooloo ci këri Serigne Touba yi ak këri seex yu mag yi ak këri ak ak taalibi yëpp. fenn fu ne ñu tànn fa ab lim ngir ñu ñëw xam ne lii kat seen yëfa moom dafa dafa àndoon ak ñoom di liggéey liggéey bi rek waaye bi mu sottee nag dellowaat jibbalaat na leen ko loolu moo tax kër gu nekk mu tànn fa mbooloo ba ci guy mbind gii ñu bokk toog tey njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine gi tànn nañ ci lu mu gàtt gàtt fukki nit ko yoo xam ne incha allahu taala danañu bokk ci ñi njëkk teewe e bokk ci ñi nga xam te ne ñooy jiitu ci jàng boobu. kon nag euh, jàngu boo xam ne daal sëriñ bi euh, am na ci ndam ndax euh, dafay ëpp na université ni ma ko waxee woon mooy day nit ki dafiy tàmbalee ci kiy door a dal ba ka jeexal lépp ci benn barab bi mënees na ko defee foof waajal nañu ko ba nga xam ne lépp mat na foofa kon nag jëf ju rëy la njabootu Cheikh Mouhamad Lamine nag ñoom dañ ciy sant bu baax ndax nii nga xam ne rek noonu la Euh, ci njabootu Serigne Touba gépp ànd ñoom itam ba Serigne bi wootee liggéey bi ba tey jii ñu ngi ànd seen bokk wa waa Daaru Xuddus yi waxtu nekk lu man ak lu ñu mënul ñëpp a ngi koy jéem ngir ba barkeelu euh, ànd ak Serigne bi ci liggéey bu rëy bi nga xam ne woote na ko. kon nag euh, buñu demee ba àgg foofu tey jii njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine moom ñu ngi ciy sant Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ci gërëm di ko ci ndokkeel. di ko ñaanal bu baax nag ci njiital Serigne Moustapha mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak njaboot gépp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi ciy sant Serigne bi di ko ñaanal yàlla dolli ko fee yàggal dolli ko defal wér di ci ndokkeel jullit yëpp di ci ndokkeel taalibi Serigne Touba yëpp. kon nag euh, noonu Serigne bi waa guy mbind moom ñu ngi sant Serigne bi bu baax di ko ñaanal yàlla dolli ko fee yàggal te dolli ko defal ko seen cant nag. mi ngi tabbi rek ci biir cantuk Cheikh euh, Cheikh Amadou Mokhtar mi nga xam ne mooy xalifab daaru xudus di xalifab guy mbind ndax nag jekk noonu lañu ñu ànde woon liggéey bi kon nag eh, cantuk eh, guy mbind mi ngi tabbi ci biir cantuk Cheikh Ahmadou Mokhtar mi nga xam ne moo jiite daar xudus ak guy mbind wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu